<laughs> xaaral ma toog nii <laughs> xaaral ma toog ci diggi lal bi parce que dama soola la su ma indi loon suma ring light bi nag ba taalal ma ko <laughs> ma ne waa hips de foofu su baaxut foofu baaxut waaw baax na ma ne ana waa kër ah, ah, Ahmadou Ba <laughs> cin bu naree neex su baxee dafay xeeñ yàlla bu fi seytaane rajim yi jaar ba yàqal ñu ko ñun dañuy célébrer tey ku ñu teree célébrer ñu news la waa ma ana waa Amadou Ba génn si leen <laughs> oh ndeysaan xam naa Macky nga naan café ba sa yàgg mu jóg di kàppar ñi naan dëgg dëgg xale yi ñuusal nañ ma Amadou Macky moo gën a bugg a eh, ñu win Amadou Ba xamoon na loolu non waaye Amadou Ba yo <laughs> Amadou Ba ay trois la Amadou Ba trois <laughs> Amadou Ba borom penkay soixante-dix billaay wallaay talaay naka nga xamee lii ku ma wil rek dafa ku ma ma ne kii rek kooku la man yàlla ma bëgg a xoolal juboo naak yàlla ba lu ma ko ñaan mu may ma ko te billahi coono gi Ousmane Sonko ak xale li dak Sénégal yi daj foog yàlla may leen jàmm yaa pop pop pop dama dama kontaan bi mënumaa lekk waaye ana waa kër penka ana waa kër hips ana Amadou penka my choice my choice dañ naan Touba moom man Touba billaay walaay bëgg naa Touba bëgg naa leen dañ naan Amadou Ba seize Amadou Ba neuf du ma wax neuf sax Amadou Ba neuf <laughs> sarap xooli Amadou Ba wooy xam naa ngi naan jërëjëf yàlla indil nga ma xale yi ñuy cottal ma Amadou Ba mooy woon suma last choice waaye dama mistake tànn ko ah woo patalaw palaw tawto Seydina Ousmane billaay yaa mun a tànn nag Seydina Ousmane yaa mun a falaate koo fal yàlla fal yàlla faale ko Seydina Ousmane mu sell mi koo fal rek yàlla fale ko laay lii li laa waa ana waa kër Ibou Ndaw <laughs> waay moo njaay merci beaucoup merci mi c'est trop content mais mais mais mais euh, c'est-à-dire que Amadou euh, Penk Xips <laughs> six o'clock laa eewu def live ne Gambien si nekk Gambie génn leen ngeen woote ji yéen ñi nekk ci àdduna waaye xoolal lu ma teel a teel a ew fekk ni ñi xale yaa ngi rang Sénégal di xaar woote man bëgg naa leen sigil ngeen Seydina mu sell mi yal na leen yàlla sigil génnee ngeen Sénégal ci ay tooxi doona yal na leen yàlla génne ci ay jafe-jafe yoo leen munti duga awaay sagal ngeen ay waay suñ noon yee seen ŋaam yi <laughs> waaye ana borom lëmbal bi waaye Amadou borom lembal ba ah waaye Amadou ba tey tey ay Idrissa eh, beñe dugub moom Idrissa beñe dugub ay zéro la moo am te français ñu ngi service ni ñoo waxee eh, Idrissa Seck zéro Amadou Ba trois kële kële naka la tuddaati ki ànd mi Barthélémy Dias ñoom Barthélémy Dias ay zéro lañ doon am ay seize <laughs> in Dakar laa ñii dañ leen di cootaa cootaa cootaa ah waaye lii bëgg naa ko de man daal bëgg na président xale ana Mr Diomaye eh his excellence président Diomaye waxoon naa leen Sénégal da ngeen di votal kenn am ñaar two for the price of one Seydina Ousmane du nit nag billaay yàllaa la bugg nag yàllaa la teral nag yàllaa la faale yal na nga gudda fan loolu laal yal na barke ni kaaba ga ca màkk Seydina Ousmane yaay gor nak yaa mun a tànn nag yow mii <laughs> lia waa léegi dañuy sëgg seppem fa ñuy dëngal guux nuñ koy defee wax leen ma wax leen ma c'est trop content mais mais mais mais euh, euh, c'est la take this opportunity euh, to thank the the citizen of Sénégal weeseeñ merci beaucoup daal merci daal <laughs> yàlla yaay karim yàlla nag mooy ponkal nag duulkat yi fenkat yi sàccakat yi caga yu màgget ji ñoom kura maki ñoom mbaa may doomu araam ñang aji saar nañ tegal sa ndey ba nga xam ne fen baaxul aji saar yow sa jàmm jeex na Sénégal su la su la su la jomaay deful dara nga ne dangaa ko séeréer sonko defu la yi defu la dara gambee ni ñun suma maas gi ñooy tegal sa ndey aji saar benn mbécc rek laa la dig nga tex yay yàlla yaay karim nag dëgg waaye Macky Sall tey mu ngaa ndogu di jooy naan ah waay sàcce yi daan sàcce jeex na waay ay waay sàcce amatul waay cin bu naree neex suba xee lay xeeñ woo xool leen ko rek xool leen xool leen kii kii ko bañ doon nit yéen Amadou Ba moomu ñeme ngeen ko wooteel Sénégal ñeme ngeen a woteel amadu Ba mu jiital ay penkaam taxaw kër gum eewoo jeeg ji naan ana ana beecoy <laughs> koy waxal xaaral moon leen amadu Ba xool leen Amadou Ba ak ndigali xool leen digi Amadou Ba <laughs> <laughs> xool leen kaw Amadou rek xool leen kaw Amadou xoolal booy bi ko toppandoo <coughs> I am tired wait daa ilaha illallah non Sénégal am ngeen fulla nag seen baay ñëw na ana ñoom Macky Sall ak sa groupe doomu xaraam paayu kat seen day ñooyu ana paayi téegal seen day maa ko wax paayi doomu xaraam yooyu toog foofu naan gëmal te dóor dinañ gëmatee dog seeni dambal doomu xaram su eboo mu nekk weeri koor sax yàlla dinañu jéggal doomi xaraam yi yéen li ngeen ñu teg yëpp ngeen foog na yéen mun ngeen am ndam ci kanami xale yi yàlla du leen ko may tiyaaya tiyaaya suma président is winning is winning ana Kiné rakki jàmbur Kiné dama kontaan Kiné billaay wallaay Kiné dama kontaan fi ma nekk nii ba oh no yàlla mooy Karim nag xool leen xool leen xale yi rek xool leen xale yi look at his excellency Seydina Ousmane mu sell mi ki kii waruta nekk président gis nga kii moom mooy tànn njiit kii dafa am spécial kii dafa am spécial uh, gift in life yàlla daf ko def moom mooy elect présidence moom kum kum tànn rek yàlla faale la dia waaye Ousmane Sonko yaay ndaanaan nag Ousmane Sonko yë ah yal na sew yoon yegg xale senegal kontaan naa ci yéen de mag ak ndaw góor a jigéen Amadou Penka Ba trois <laughs> Idrissa Beñe dugub zéro Khalifa Sall minus zéro <laughs> <coughs> Khalifa Sall daal gat ba lita tax li ma neex moom <coughs> xam ngeen li ma neex ci Khalifa Sall liñ koo gañe Barthélemy jaas doomi xaraam boobu mel ni naji seex béycoo loolu rek a ma neex ci gañe guñ gañe xalifa e, Sall Khalifa Sall moom saa amul sax fenn foo xam ne am na fa saa saa rek amu ko saa maanaam hundra ori suy hundra amu ko seetit dama kont xool leen lekkuma ba maa ngi nii toog dama kontaan dama kontaan ko ay waay yàlla jërëjëf waay ay waay yaa jàll yàlla jërëjëf yaa sal jalaali ay waay yàlla jërëjëf waay yow borom <laughs> waay suma jëkkër na suma baat bi su dee dina ma mere ay to be at this point I really don't care ëllëg fajar mooy càppande nday ma jàll nday féeri bi damay dem dee kenn du ñu dañuy dem de <laughs> waaye jomaay lan la jomaay ñu ne la yéen a mun gars yi man dama ne la woon nooxa leen gars yi waaye jomaay ndeke xamul nooxa séeréer yéen a agressif nag ñu ne jomaay nooxal gars yi jomaay di ñëw saate jomaay daal baleem la jël rek di leen ci <laughs> laay his excellency di the youngest president in the world Seydina Ousmane Sonko Faye <laughs> waaye yéen yàlla nit la yeah, who is leading the only one that is supposed to be leading now guru bi Seydina Ousmane mu sell ah ah ah man bëgg naa Seydina de bëgg naa Sonko Sonko mooy jomaay jomaay mooy Sonko kum dog sa gat demal tëri xam ne biir bu daw dina la rey lii ngeen doon bañ neel Macky mooy mooy kële ku borom penkay num tuddati Amadou Amadou <laughs> Macky nga ndogu akaraam ca pale ba te xam na ne tey mooy mujjanteeli ndogo Macky Macky in a week time dafa bàyyi pale ba te maki ah Macky yërëm naa la nag moo tax def lu bon baaxut Macky def na lu bon lu <laughs> I am deading I am really really dying senegal am ngeen jom am ngeen fulla bugga ngeen seen réew bugga ngeen seen naa Ousmane mu sell mi yal na leen yàlla kàttanal yal na leen yàlla dooleel deuxième tour bugguma ku ko wax fen waruta am ah waaye man bëgg naa ñi ngeen di ñu waay waaye yéen ndiki séeréer nii la ñàkkee caaxaan man dama ne woon eh, eh, kii jomaay ma ne ko jomaay jëlal bala bi rek nga ñawal ñuusal ma gars yi ndeke jomaay duy ñuus dafa cootaate <laughs> jomaay daal la jël bale bi di leen fimbax ñuy daw borom penkay xam nga moom dafa am problème yi ndigga moo munta daw woo pëtalaw pëlaw taw <laughs> taw taw <laughs> ah waay yàlla C'est mais mais mais c'est trop content quand même. Uh, ça c'est ça c'est very thankful to the Senegalese people. Uh, I I am saying a very big merci beaucoup merci uh, parce que tu make me happy. Toi you make me happy. Ah Ori Mam Ndiaye Macky Sall dootoo fi nekkati président Sénégal république. Eh, maam Ndiaye ne réplique maam Ndiaye mun tawa république <laughs> lambal leen ma Amadou Ba ndax daanu wut Chris dégg naa am na kenn ci ñoom xool leen li ngeen mënta xam mooy Amadou Ba poste bi mu demee vote ci boppam moom fi boppam fi mu voté fi mu sànni kartaam jomaay moo ko fa win Amadou Ba carte la fa am carte <laughs> ma ko Amadou Bala ak yaayam ak doomi bàjjanam bu dof bi ak xam naa jabaram ma ne ana suma gars yi Gambien yi doon support Amadou génn si leen un par un minus zéro plus zéro égale zéro <coughs> my choice Ndeye Bine I am soo so content mais tey moom vraiment vraiment foog ma lakkal leen français euh, parce que la Senegalese euh, continent la they very humble people bu leen worry about the français it's English and French mixed together so we are good to go Barthélémy Dias waroon ngaa xam ne or ku ko def ren ba déwén mu jik la dafa fekk tegaluñ sa ndey ba ci gi nar a kaama Barthélémy Dias Barthélémy Dias yow Bart yow yow jomaay jógut ci yow sonko jógut ci yow ay xale yu ndaw yoo xam ne yaa leen mut baay ñoo teegal sa ndey diggi ndakaaru te dara xewul barte yow gisagoo dara gis nga yaag sa fetal boobu dinañ waay yow baat yow dañuy kattre <laughs> waaye sarab lii waay <laughs> waaye borom borom beñe dugub bi nu mu tuddaati Idrissa Seck moom moom dafa jël zéro rek moom Idrissa Seck comme UDP dafa jël zéro rek moomale ko boppa <laughs> tey tey dama célébrer ba bor set ma jàll féeri bi dem ca jubilee ba eh xale yi daw leen bàyyi eh, Amadou ñëw na xale yi dem leen gis ngeen Amadou Ba Amadou Ba yow ku la waxoon nga tëdd ba digg guddi ñu yee la ne borom digg li nga ne naam ñu la jógal toog <laughs> ma ngi dee Sonko Sonko waaye Sonko yaa soxor nag Sonko moo jugee prison campagne five days coota ji eh Seydina Ousmane Sonko you, you are blessed wéetoo wéetoo laay lii li am ku may woo xaar leen woo ngeen gor woo naan woo bete bete <laughs> woo ku ndeyam garaw yaa xadi yaa xadi ñaanal nga sa doom jàpp na ñun ñëpp ànd nañ ci ñaan gi ñu ngi naan amin yaa xadi wóoroon nañ ñu ne sa tekkaaral googu xamoon nañ ne ndam rek nga cee am billahi doo am gàcce sa doom ji taxul tilimul jegewul ku taxa ndax ku gis jomaay mi mu tàkk ay waay jërë ngeen jëf waaye ci ci gis ngeen tey du nelaw du ma jinkoo du ma gumantu tey bu ma deeyoon ñaan naa ko yaa rabbi daf may dugal aljana ndax ni ma kontaanee géej naa koo kontaanee ay waay dara gën a neex nga ñu say noon ba ca gi nar a kàmm wóppatalaw <laughs> ah wow mais vraiment Idrissa ngi nii borom beñe bi moom foo ko fekk mu nge sax mi man xaw ma dafa xiif xaw ma xaar leen ma wax leen niñ koo wax xaar leen de ma ñëw ana Idi ñu ngi koo ñaanal ñu naan ko yal na jël eh, réew mi Idi di saxar mi Idi ngi mel ni xaw ma cox la doon yéey xaw ma. nga ko ndogoon nii pale 2024 <laughs> I am hot. Oh. I am very, very hot. Oh. <laughs> Munas, thank you, thank you, thank you, thank you. Why Munas been down at your time? Ah, you can sell hot of it. Whoa. <laughs> yaawoo yeeyo xam nga kii mu ne xaw ma ana ana kii mu ne ndax Sénégal dañ am national anthem bu ees su moom mënut a waxee Ziguinchor <laughs> Sonko bi naa la mu naan woy boobu woy boobu Sonko bi naa naa <laughs> xanaa Sénégal dañ am <coughs> ah yes ataaya ji <laughs> kay wax leen baraada bi tey bu mu fay indi wax leen tey bugguma ataaya bi fey baraada bi na taal ba élection eight o'clock kuy tëddi tëddi ñoom ñëpp ku nekk tey dama leen di may thousand dollars yi ndax kontaan waxal ma leen ko yaay tiida maa ko wax tiida kaay kaay kaay ñu celebrate ana siga soor eh, sonko bi naana <laughs> am na ñu doon binda naan ma Amina dégga dégga jomaay munta nekk président yàlla ba moo foree président doomi aadama noppi na fekkee wuñ ko buñ ko fekke woon ah yàlla bu ci seytaane jaar ba yàqal ñu ko ah ndam li tiida aca yuuxul salbretal tiida waxal sonko <laughs> jomaay waxal tugu-tugu waagaan xaddis waagaan ndeysaan idrissa <laughs> idrissa idrissa dañ naa idrissa beñe dugub sec mu ne président ñu ne ko get out <laughs> ñu ne Ahmadou Ndiga ba borom penkay mu ne président ñu ne ko coota la toog noo waay mbir mi neex la Sénégal man bëgg naa leen de bëgg naa leen commencement bi na moo nekk ni tey eh, tey suma kër na door pas c'est pas de dormir c'est drink ataaya c'est jubilé et c'est bégte loolu ko fi nekk deuxième tour y pas de temps non euh, parce que ça c'est Ousmane Sonko qui est gagné we celebrate Cacete. suma suma baat ba ngee waaja dee wooy six o'clock laa ee suma jëkkër ne ko demal sànni ji carte te am bii nit ñi dañ fa dee bari suma demee dama rang damaa xaar ba two o'clock suma jullee tuut dem ma ne ko demal rek naaj bi lii mën a ko demal léegi rek waaw mu ngoog nii la nii la <coughs> gëmul ma naan ma suñ tu ma bàyyi ba ten o'clock ba oo taxi ma akool taxi fay taxi bi taxi bi ñoo jësi ko ma ne ko taxi baa ngi laa xaar ci gi mu dem woote ji woo Patel Ndaw Ousmane amuñ carte buñ la wooteel waaye am nañ temps ak heure ak moyen boo xam ne di jaral nga ñu ko ah suma raka ji rëkk na junjung yi bilaay junjung rëkk naa jëmbaare yi waaj loolu ku santa fay lañ ko war a wéyal ak ku santa sonko sonko niñ sa nañ sidibel niñ sankare dool ko nañ cool bantante ko nañ cool bi janne ite mu for eh, eh, koriŋoleti sonko ñool mu koriŋoleti ite mu korim baleti eh, his excellency yow yàlla daf la def njiit boo xam ne yow yaa war a tànn njiit e may sa dere tàng na dee sama rakk ji deretam tàng na dee rakk nga jinjing yi <laughs> non Ousmane Sonko su amutoon lii te lii teeñ bi la en bi ñëwagut en bi buy ñëw képp ku waroon a taxaw nekk président tégal nañ sa ndey ba pare ay Amadou Penka Sall Ba xam naa maki moom mu ngay reer di ndogu ah, Macky nga rey Amadou Ba yii maki kool ma ne ko Macky lan la Macky naan keng keng keng keng keng ci téléphone bi du maki Sall ak ñoom dañ mun a duul rek ñoo leen daax a duul dinañ leen duulal ba ngeen tàbbi safara yéen mënu leen a duul sax ma jéem a léegi ma avance noo def kasama ma ne ko maki looy ree yaa ngi kontaan de mu ne ma gune gune gi sant fay gune gi nga xam ne kenn xamu ko woon son koo ko tànn ma ne ko ah mu ne ma moo ma cootal Amadou Ba mun ne ma lii laa kontaan maag Mariam Mariam ngaa defar gurom suuf sa gannaaw di toog a ebe lii ree ma ne ko maki ma foog ne yaa ko tànn ñu ko dóor mu ne ma dama bañoon rek àdduna mbama ma moo tax ma tànn waaye tekkiwul dara ci démbay daaw bi ma kee ma ko wax de ma kii de Amadou tekki yàlla mi yoon na yàlla yàlla ñu lay ñaan dellu di la ñaan ñu naan la jërëjëf yaa rabbi ni ko commencé baax na neex na merci beaucoup baay baay maa ngi dem ba ci kanam damay dellu si de nee naa leen tey duma jinkoo duma nelaw duma gumentu billaahi bu leen balal noon yi ah, seet leen de ana ñu ne woon du fi am bam fa abee loo def téegal ngeen seen day noppi de ana Aïssa Fraaj Aïssa Fraaj ça va ça va bien <laughs> kersa gay <laughs> Ousmane Sonko jigéeni Gambie yëpp yaay seen yaay seen broda ñëpp nga nekk seen broda ñii nopp la ñi leen nopp dem leen toog Ousmane gaaree na ba pare am na am am am na am na eh, eh, naka la tuddaati eh, aana ak kebe ñooñu la ñooñu la tal ñooñu la jox loxo yéen da ngeen di xaar laa da ngeen di xaar Ousmane boo bëggatee takal takal ko Santa Faye diggante séeréer ak joola affaire yi kal bi la kal ko fa bul <laughs> aji doom xaraam bi xaw ma ana nga Mohamed thank you thank you thank you so much thank you Mohamed si la suma brother thank you waaye dëgg dëgg I cannot be happy fi mu nekk bu fi amoon sax neex nañ parce que tegal nañ seen day ba bugga dee kii fan la moo win ay ay Botswana ñun day xam Botswana da nga gis nit ku baax ku dem Botswana suma mbokki yaay rek ñooy takka seen pol dem fa di fa toog futti maa ngi wëccu xaar leen xale bu naan ataaya ah ana Fatima yaayi yéen ñun bañ pare ñun dañ bañ paree daf di tey yéen Amadou Ba bam takkoo ba dëgër juutal taatam yu baax yooyu ak penk aasi Amadou Ba xanaa aas Bernard la dëkk nag amadu sa sa gannaaw baax na Amadou Ba Amadou kër goo ewoo rek xa ma sa jabari nuñ mel ndax dañ tàppa ndax am nañ tuuti waaye Amadou Ba sa jabar yi soo ordoo sarbet ba jox leen gannaaw yàlla bu guddi jotee bañ abal a ji string ba takkal la juróom ñaari fer <laughs> Amadou Ba di nga mun a yëngal nag ndax xam nga yow sa ndigal dafa dama ba pare ba Amadou Ba gars yi di la tàccul rek nga naan ko Diomaye ak Sonko ñoo def nii rete gin taas gin reste gin giis giis <laughs> guys guys I have to love yous and leave yous because I have to be back oh I have to be back let me go back to this this this thingy ku nekk si kër gi kenn benn nit kaay leen ngeen jox ma remote bi ma yokkaat télévision bi laay léegi la who is that thank you Mohamed jox eh, remote télé bi ma papa fan la ko teg mu ngi noonu si kaw eh, box bi fayal lampi woon ak bële naam daali xaar leen xaar leen c'est-à-dire euh, cest euh, la la they go on breaks, but they'll be back. I'm saying thank you so much guys thank you do come back later on because guddi tey gii guddi suñ noon du nelaw buñ nelawee sax buñ nelawee sax nañ leen cootayee yee waaye Amadou nag man Amadou yow moom aw ma woon si yow fi ñaari xel yow moom yow yo were not again with me no it's never been yow ah, musuma xalaat ne Amadou dafa awin ku soog ko teg mbër mu sonko sampa ba teg ko ba xale yi ne waaw xoolal sonko daf naan kii la xale yi xale yi oké ko sonko bu ne kii la ba xale yi oké mbër moomu du du mun a daan kenn ah sonko nag yow tam yow fi yàlla teg nag yaa fi de nga yëg ko yaa fi ne boo ko yëgul yaa fi ne bilaay sonko nin saañan sidibel nin sankare yaay nancoo yaa juddu ci gor nampa ci gor màgg ci gor sonko billaahi kuy lekk gor bu la tiimee na nga sonko yaa am jom li dal yëpp li nga daj yëpp xaddiwuloo sonnuloo tàyyiwuloo gannaaw nga jóg xëccoowuloo place comme hongri wul sii la wër nga jóg jox nit sa place na ko taxawal te bu la neexoon nga forcé na danga boka nga ne kii la kii mooy man maay moom billaay sonko yaay gor nag sonko yay gor sonko billaahi yaa baax waaye dinga xam ne yàlla la gën a baax Ousmane Ousmane du dangay baax rek dénk nañ la yàlla ak yonent bi ci darajay weer wi ci barke alxuraan darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sonko yal na la yàlla laaxa fu yàq àggul ñii di la xaar doomi xaraam yu xiif yii Sonko yàlla buñ la gis awaay ah, série ana kontaan nañ de kontaan nañ merci beaucoup bye bye maa ngi dem damay dellu si la ma leen doon ñëw rek di leen won fi ñu toll ñu ngi tolloo tolloogum ci lead xam nga comme Sonko is the leader we are leading so for now I will go back I'll be back though I'll be back nee leen amin nag ci ñaan ku soppa Sonko neel amin Sonko yal na ko yàlla teg bé képp kum teg nga tegu Sonko xale yi ànd xeex lii tey ba mag ñi fekk si leen ñu naan wiiw fay ak wiiw Sonko yal na leen yàlla may gudd fan ak wér Sénégal kontaan naa ci yéen de ma ne fan laa war a fan ngeen xam yéen Gambien yi nekk di ma seetaan kan ngeen xam ku ku kuy jël carte d'identité dama delloo bu Gambie bi bu gaa tubaa nekk Gambien am going to Sénégal su ma dëkki maam laa jëm damay ñibbi ku xamul fa nga jëm dellu fa nga jógee Sonko jël na réew mi Sénégal dañ ko change into America plus China and UK am going back home yéen mankaa yi fi nekk nag toog leen di tàccoo ko fecca man dem naa de ah waaye Ousmane na la yàlla laax Ousmane yal na la yàlla sàmm Ousmane yal na la yàlla sàmm Ousmane yal na yàlla sàmm sa noon yi la sëm wër la bugga laa faagaagal Ousmane yal na yàlla tegal seen day benn pat benn des na maître El Hadj Diouf de maître El Hadj moom bés bu ko gisee Gàmbi dinaa ko matt billaahi dinaa ko matt si diggi bopp dinaa matt maître El Hadj Diouf that is a promise dinaa xuus ci ndajami ba aga ci moom matta ko ci neni koy maa la promise li yotam suma broda jërë ngeen jëf senegal senegal yéen am jom sénégalais si nekk ak sénégal ak ñi nekk ci biti yépp billahi yéen a am jom yal na leen yàlla teral li ngeen di ut ci dëkk boo leen munti nekk yal na leen ko yàlla defal yéen ñi vootal jomaay yéen ñi taxawal Pastef yal na leen yàlla taxaw yéen ñi seen Seydina usmaan mu sell mi yal na leen yàlla taxaw yal na leen yàlla iir aar leen lépp loo leen uti ci biti yal na leen ko yàlla may ñi bugg a kayit yal na leen yàlla may kayit ñi bugg a alal leen yàlla may alal mu jik leen it yal na ngeen fi yàggate wér gudda fan wér am alal gi baree baree bari awaay ah, Amadou ba tey nooy nelawee oh Amadou yow garab rek ngay naan xanaa nga boole ci sleeping pills naka nga daa waxee sleeping pill in French dormital tablets <laughs> Amadou Ba eh, pare after after results tia teg sleeping eh, dormi et eh, dormi moom rek laa fi gis fi mu nekk dormi et eh, cry a little bit and you'll feel better in the morning su ko defee nga kool nag Jomaay ak Ousmane ne ko digg seen naa Ousmane ponkal nga kii mooy seen baay daf di seen morom yéen son ko mbor mu yàlla sampala ku ko bugg daaneel ku ko bugg a galgal say tànkay damma ci galgal waaye doo soog laaj leen makki mi ko jéemoon laaj leen Macky ah waaye Seydina Ousmane fi mu nekk nii suma bopp baa ngi métti mais leen mu ma dem te ñëw bu ma dellu see mu gën fee neex dégg ngeen bu kenn teg bu kenn tëdda tey bu leen nelaw jox naa ñëpp holiday ëllëg liggéey amut dara amut jox naa leen international holiday day <laughs> this is from Pastef from my special brother Seydina Ousmane Musellami and my one and only baby president Jomai Faye his excellency tur bi sax dafa neex ana waa Sine Saalum dugu-dugu waa gaan hadis waa yaa ay waay mbañi démb noo di def tey ay waay dulkati démb yi tey noo leen di siggee ay waay yéen magi dulkati mandikat yi tey noo leen di siggee xool xale yi senegal xale yi meeg nañ history de gu nekk Sénégal def ngeen history tey yéen a ngi ci history book kontaan ci yéen rek kontaan ci yéen ah kii Aline Badara Sonko la tudd ah mbuux mbuux moom dañ ko dëbb ba mel ni suul ak bëggëj ah Amadou Ba daal si dëkki pël yii la wiin xam moom ku leen faale ñoom foofu lañoo ñoo nekk di togg seen futti suy si sa diwtiir jël kanja jaxatu kanja jaxatu ku leen di mix jël kanja jaxatu baxal wol dem teg ci ñànkatang suy si diwtiir teg netatu asaay li ngeen di votal Amadou Ba yal na leen suñ àqadar képp ku sànni Amadou Ba yal na nga tëdd ba guddi ñu ko sa bunti muudi sànni ci brin rek mu a jëfe tàkk képp koo xam ne da nga sànnil Amadou Ba yal na nga tëdd ba guddi sa néeg di naaw ay yàlla billaay yal na ko yàlla def ay waay yàlla lu ma la musa ñaan may nga ma ko yàlla lépp lu ma la musa ñaan ci àdduna rek defal nga ma yàlla ñeewuma suma benn moroom yàlla xaari ñaanuma kenn xooñ yàlla teeluma benn jeeg saagam yàlla dewuma kër kenn di naan ñeex lépp lu ma la musa ñaan defal nga ma ko waaye yàlla dimbale ma rek ay nooni naa Ousmane Sonko nga taal leen ñu takk lii rek laa la ñaan yéen soldaari nag di ngeen réglé seen boss yi ñoom ñëpp la ñoo dimoot bu eboo ngeen dem holidays bañ a ñëw de xam nga nag Seydina Ousmane mu sell mi ndeysaan mu ne ñoom ñëwoñ pour fayeeku waaye ñun ñooy ko par la force doole mbaa ñoom Antoine ñàkk jom foog ñu diil ak ñoom biir Sénégal ñoom maa mbay ñaa borom deux cent mille yi te Ousmane ko waxoon na la ko du la fay dix Mali yow dix Mali boobu bu la ko fayee dañ la ko jaalee sa dëcc maître hélas ju fa gémmiñam gu tooy gu rata tooy gi yow moom man foog foog maître El Hadj Diouf foog ma maata ko rek maître El Hadj Diouf foog ma maata ko rek sa diggi boppa foog ma maata ko aji saar nag soo leen ma ko a may rek may leen ma ko benn trente secondes rek aji saar dama ko sotti pétrole rek taal ko yes yes ti da bàyyil sama bunta bi guys i have to love yous and leave yous i'll back bàyyi suma bunta bi <laughs> looy def xaar leen ma dem te ñëw ma mën a dem nag ndogu ji fi mu nekk waxtu ndogu jot na di leen wax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf Sénégal képp koo xam ne wooteel nga président Jomaay yal na la yàlla fay ay ngëneel yal na ngeen gudda fan yal na ngeen wér yal na ngeen wérle yal na ngeen enam xaalis bu baree baree baree bare tem tem tem jik leen képp ku leen di xaar yal na bi yéen doomi xaraam yi kompaloo woon Ousmane yëpp ku nekk yal na nga am doomi katakaynde jërë ngeen jëf ñu ba ci kanam maa ngi dem te ñëw bu ma dellusee see affaire bi gën a très bien ah tii da nga ne naka sonko bi daanaan maam laa na ko wax de ne naka xale bi de mu ne dafa soccu nii <laughs> kii mooy kii mooy Serigne Amadou bi <laughs> mu nga xeel Serigne Ahmadou Ba <laughs> <laughs> Ba <laughs> Amadou Ba nag Amadou Ba nag yàlla nattu na la ba ñëw oosatul xale yi di gomma seen bët they don't want to hear your name your cause Amadou Ba your cause si kanam si kanam si kanam merci beaucoup waay merci beaucoup bye bye ñoo ngi dem merci beaucoup bye bye ba ngay ñibbi bul dem waaye du dew ma fen